nga ci www.heritagecouture.net gannaaw ba mu réussir lancement au site internet bu héritage couture teg ci application mobile bu héritage couture Modou Gueye l'homme des innovations ku innové ci ñaw ñu ne Modou Gueye waaye nag bi yoon showroom boo xam ni kenn mësu koo gis ci Sénégal le Modou Gueye héritage ubbi fan zone de captage rond-point EMG ah loolu nag l'homme de la haute couture la ñu ko tuddee Modou Gueye héritage àndandoo un personnel qualifié venez voir la dernière collection de Modou Gueye Héritage dans un cadre luxueux et convivial. Héritage Couture, l'héritage de la mode. Modou Gueye Héritage 00 221 77 643 80 59 ou le 00 221 78 636 02 03 à Modou Gueye Héritage. Nous sommes très fiers de Modou Gueye Héritage. Modou Gueye Héritage, le nouveau showroom, le showroom Héritage pour être asalaamaaleykum mbokki internaute diaspora 221 gannaaw buñ leen nuyoo di leen ziara di am mbégte di leen daral seen émission li xew si réew mi ni ñu koy defee saa su nekk ànd see ki nga xamante ni moom moo di Bada Naajo ku ko xamul ku nekk dégg nga ko si mim réew Bada ñu ngi lay nuyu. maa ngi leen di fay yéen ñëpp maa ngi nuyu ñëpp ñu ñuy seetaan di leen di bëggee di leen ñu naan ngeen toog xaar tey lu xew fii nii moom dañ ko dara a faram-fàccee wax leen lan moo tey si dëkk bi. comme ni ma ko nuyee nii sànq nii bada li xew si réew mi la ñuy daal di faram-fàccee comme que Sénégal chaque jour nga dégg cas bu bees fi mu nekk nii gars yi lan la ñuy cas fi mu toll nii. maanaam si kaa Queen biis bi si lañ nekk Queen Biz ak Wally Seck. Wally Seck ak Queen biis am Wally indil Queen Biz tey jii lan moo si sa xalaat bada. ak lépp nu mu mënti demee dañoo war a wax ni justice pour Queen Biz. maanaam. maanaam kiwin lu mu ñu defal bëri na Queen ba gars yi waree way kenn wayut moom moo ñëw génn wayal ñu. gars yi bëggee kon boog justice pour Queen Biz sénégalais yi delloo leen njukkal Queen Biz ñu war a defal lu ñu war a defal Queen Biz mais dañu ne tombe moo waral ay gaaf te Queen Biz yàgg naa way Sénégal jërul dara xanaa Queen Biz ren ji la way Sénégal jër dara Queen moo jik équipe bi mais bu dee waale nag mooy waykatu dëkk bi. mais Kiwin moo jik équipe bi justice pour Kiwin Biz. mais damay laaj ci yéen sénégalais yi kan ngeen wa àndal waali ngeen àndal wala Kiwin Biz loolooy laaj bi tey. gars yi nañ ñu tontu ci suuf commentaire yi ñu ne waali waa Kiwin Biz mais man Kiwin biis laa àndal. dañu ne li xew si réew mi ban lan ak lan moo xew si réew mi jamonoon bii. maanaam tey daal damaa yeewu ñëw suñu kàcce ñëw gis fa ay policiers yu bëri àndal suñuy maire. maire bi ma jaaxle trop laaj ko lan moo xew mu ne ma drapeau yu ñu takk si biir koñ bi yooyu lañ war a dindi ndax es bi xàmmeetuñu ban kër mooy kër seef de quartier yi. dañu ne lu neex doy te boobu ba léegi Sénégal jël na ko kon instant bi dafa jot ngir gars yi tekki drapo yi maanaam daal yow loolu moo la tax wax. waaw loolu moo ma tax a wax gars yi nañ dindi drapeau yi ñu xàmmee ban kër mooy këru chef de quartier yi. li gën a ëpp solo du lu jamono bi li gars yi di waxtaanee moom mooy def buzz jamono bi bada maanaam mooy diggante Bamba Dieng ak Virginie. gars yi dañu ne Bamba Dieng day génn ak Virginie. loolu am na wala amul. man loolu yàgg naa ko xool ndax yàgg naa dégg Bamba Dieng di woo Virginie nankaan xoolal ndax tey nu muy fubalee baax na. léegi nag jamono bii nii nag loolu am na wala lu amul loolu la gars yi di laajte nag. si man de am na. maanaam xaw ma nag ndax si yéen am na. fan nga ko teg. ndax dama kaa gis keroog kii war na ma benn vidéo boo xamante ne ñoom ñaar ñoo doon sinap loolu yow leer na la ba leer na ma nañ te Virginie mu ngi woon ci kaan ba. leer na ne que Virginie mu ngi woon si biir kaan bi. Virginie mu ngi woon si biir kaan ba pare te gis naa ko muy zimbale après ba ñu paree ba bamb ñee dugalee penalty bi da koo xool na ko nii. loolu yow loolu leer na la. waaw. ba da fi mu nekk nii li gën a ëpp solo gars yi di waxtaanee ginnaaw Kalidou Koulibaly ba mu gisee téléphone am bi war doon pare la moy sa xalaat. lu siy sama xalaat gars yi dañoo yab sénégalais yi rek mais du Kalidou Koulibaly kese mais tamit du sénégalais yi kese ndax ku sàcc téléphone bi amaa naka gars yi dañ kaa bëgg a nëbb nëbbal mais ku sàcc téléphone bi lu ma leer ba leer ah. jege na waajooju noonu jege wu ko mais leer na ma ba leer ne jege na ko ndax pale boo xool ba sa biir a biir ña dàq dóor fa lañ nekk te nee nañ palais moo ëpp sécurité ci biir Sénégal. te ñu dàq dóor biir palais lañ nekk te Koulibaly ba ñu dóoree téléphone am bi ba mu ñibbee Italie tamit dóoraat nañ téléphone bi. beneen téléphone. waaw maa ngi jox information boobu. ba da ba da fii Sénégal euh, diaspora 221 loo fi wax ngay leer. waaw Kalidou Koulibaly sàccaat nañ téléphone am biir Italie. bokkut ak bañ sàccoon biir palais. bokkuñu. ba da tëjal. jërë ngeen jëf ñu ngi leen di jox dig daje beneen yoon incha allah. koy comme ni ngeen koy gisee tey euh, seen bi nga xamante ne moom moo di seenu dëkk bi di diaspora nii lay demee saa nekk li xew si réew mi la indal di leen ko faram-fàccee benn par benn di leen jox daje ba beneen yoon